كما كتبت تزارس الباخي والسبعة ملائك التباخي لسان سكريا وزوري رفخا بالعرس والكرسي نورا وفخا لبي منور بنور الوهيب وخاد لي خير علوم المهيب أنه هو الأرود والبيان لي سلبت ولي بها أيان هرب من كتابة المدور وبعرافي تتخنى الور هرب من كتابة المدور وبعرافي تتخنى الور بسم الله ما جتمبلتي ci tudd yàlla mi may marsiyaati alhamdulillahi ma sant buur bi cant gu ànd ak jégaloo ka dellu sant yàlla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jéema jëf ay ndigalam te sant soo borom jumaa war na ku dib jullit bu wér mooy waa bismillah maa ngi leen di jaale jëwriñu Seex Bamba borom kamaali bismillah maa ngi leen di jaale jëwriñu Seex Bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba bur yàlla yóbbu ko mu fekki Bamba moo fi newoon xalifatul ilaahi Sëriñ Saaliw Mbakke moo doon xaadimu rasuulillaahi mooy salaat tariixatul muriidi ba ñépp xam muriidi ak mariidi moo dalaloon xel yi ba ñépp jaaxle waaye de tey xol yépp a bég ci loole cey Mbàkke Bàlla waaw comme ni ñu leen ko waxee woon rek ba tey rek ci ambiance yu ñibbi bi ñoo ngi ànd ak ñi xam si ne ñoo di kuréel gii di du keppar gi ñëwoon ci tooli Xelcom yi ay ci ñu ànd ak yéen kii Serigne Fallou Kane Baye Fall. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatuh. ginnaaw bi ñu sante suñu borom bi ci Seydina Mohamed sant suñu yaakaar tey ak ëllëg Seexul Xaddim ñoo ngi sant Seex taxa mi nga xam ne moo fi nekkee Serigne Touba. di sant Serigne Seex mi nga xam ne moo fi nekkee Serigne Saliou ak i rakkam ak waa kër Serigne Touba gépp ak seexi Serigne Touba yëpp. boo gisee ñu jógee fii nga xam ne mooy keppaaruk Serigne Saliou jóge fii ci Touba nga xam ne dañuy liggéeyee Serigne Saliou jëw yi ñu nekk nii taxaw ñu jóge Touba ngir liggéeyee Serigne Saliou démb nag ba tey ñu ngi ci tooyu Serigne Saliou yi di ànd liggéey bi nga xam ne moo ñu fi tax a ñëw keppaar gi nag yi ko tax a jóg mooy liggéey jëmmi Serigne Saliou rek moo ko tax a jóg yëpp yu Serigne Saliou woote yu na rek keppaar gi mi ngi ci biir ak lu mu mën di doon keppaar gi nag niyoo ko tax a jóg mooy jëfi Serigne Saliou rek yeneen ñu dul Serigne Saliou nag néew ci amu ci yàq amu ci defar ñu nag kontaan nañ ci ñëw gi nga xam ne moom la ñëw ci tooy Serigne Saliou ndax dañoo yàgg a liggéeyee Serigne mu fekk ko fi biñ demee ba nga xam ne Serigne Saliou jóge na fi tamit ñu di ko ànd ak Serigne Cheikh ba jëm jéema na tey jii ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax képp ku ñëw ci tooy yi muy mag muy ndaw di sant nag ki nga xam ne moo doonoon jëwi ñi tooy bii nga xam ne ana bu jot dañ ko daan ànd ak moom muy Serigne Saliou Ndiourougne mi nga xam ne fii ñu taxaw tey ci Ndiourougne yëpp yu yëpp yu Serigne Saliou am rek ci njuruñ Serigne Saliou njuruñ moo ko waraloon te mu dëddu ginnaaw war ñu ginnaaw ci fan yi nga xam ne ñun ñoo daan ànd tooy yi daan ko liggéey ñoo ngi ñaan ci kàttanug Serigne Saliou képp ku ñëw ci tooy yi nga fas ne Serigne Saliou njuruñ fa mu nekk yaay na ko dàqay fi mu jógee yëpp yu mu doon liggéeyee Serigne Saliou yaay na ko fekk fa mu fa nekk ñun nag suñu xooy sedd na suñum xëy day na baax a baax a baax suñu yaakaar gën naa yokk ci sëriñ Saliou ndax bis ñu ñëwee fii ba tey jii ñu wax ak yéen nañ waxante dëgg rek waaye sëriñ bi matay na bi nga xam ne moom la ñuy wax ñëpp di ko dégg giñ naa ko ci Ahmadou borom jaan ñi ba ba ñu xam na yu dem ndax sëriñ Saliou mooy mooy fànq yu ne te moo ne woon jax yéen ma ndaw ñi ma def ca ñoom ya sëñ Touba defoon ca mag ña kon nag ndaw ñi ñoo nekk nii ñi ñëpp ngeen gis génération ndaw ñi yan ay ndaw yi kese yan te ndaw ñooñu nag sooy daayu sëriñ Touba yan soor yaa ngi nii nag na ngeen xam ne yëpp yu waay di wootee soldats yi sëñ Tuubaa ci njëkk ñoo ciy mujj ñii ñu ngi ci kaw oto yi ñii ñu ngi ñibbi ñii ñu ngi jëm Koungheul ñii ngi jëm Dakar ñii ngi jëm Ndar ñii ngi jëm fu ne yëpp nag Serigne Saliou ya moom dong ya kenn du moom kuréel gi moom yi tax ñu sabab bi mooy daanaka yu ko taxaway whatsapp ci ya bokk kuréel gi yu ko taxaway whatsapp ci ya bokk ndax ñi ci bari ci whatsapp nga xamante ba suñ borom dogay ñu dem ba ñëpp soppandoo Serigne Saliou bokk def genn kuréel kuréel gi nag yaatuwaayam ndakaaru ya juddoo ba dox dëkk yëpp ba ñëw fii ci euh, Touba sëriñ Saliou ngoom jiite ko fii ci Touba jëyu ñu bari bokk ci kuréel gi nag yi ko tax a jóg jëmmi kenn dong ko tax a jóg jëmmi Serigne Saliou kenn tax koo jóg yóbbuwuñ ko ci kenn jëfuñu ko ci kenn Serigne Saliou daa ñu ñor yu Serigne Saliou ni ne ña nga ca yu Serigne Saliou nekkut kuréel gi nekku ci kuréel gi àndut ak kenn jëfut ak kenn defut ak kenn nen Serigne bi rek. moo ko doy sëriñ bi dong na ngay liggéey fépp sëriñ bi ne fu mu woote ña ca sëriñ bi fépp fu sëriñ bi mataya bu woote dayu wan nañ ca yitte ya dayu ca liggéey ya fii am na daaye daaye bi sëriñ saa yu ngoomang ci ak yeneen jëw ñu mag yëpp képp koo xam ne tamit bëgg ngaa bokk ci kuréel bi boo gisee sëriñ saa yu ngoom rek mën ngaa gis kuréel bi ñëpp Moustapha Dieng asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi ci aat ñëpp kulluhum di leen ñu béggaat baax di amaat cant mbégte goo xam ne nii jógee nañ xelkom ne ci yoon gi di delluwaat ñaan képp ki nga xam ne ne kite nga daara ji nga newoon ci xelkom di fa xidmal Serigne Saliou saa borom dafale tawféex ak taysiir ba lépp lu ñu fa doon sàkku rek lépp yomb ci barkeb xelkom kon bu buñ ko defee dañuy nuyu ñëpp ci turu daara ji nga xam ne ni moo ñu fi daje ñi ñëpp muy keppaaw Serigne Saliou Mbacke ñu àndal suñu jëwriñ yi Moxtaare et ñoom jëwriñ Makuma Ndiaye ñoom joori euh, Cheikh Ibrahima ñoom Assane ñoom suñ Fallou ak ñëpp ñu ngi ziar ñëpp yaay faale yëpp ñu ngi leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw. waaw santaat sëñ Saaliw rek ndax ndigal moom bu ko murit motalee rek amul lu dul santaat ak takkaat laxasaay gën a ndax doonu loo xam ne lu fi yem la day continuer kon saa su ne dañuy ñaan too feexut sëñ bi baax a baax a baax ndax ñi mën a gën a mën a yokk too féex gi ak doole geeg mbooloo meeg lépp ci jëm sëñ Saaliw santaane bi ne amoo ci contexte boo xam jamono ji am lu fi xewoon. Hmm. Euh, tey bi ngeen ñëwee yëg-yëg bu mel ni lu mel ni mur yi dañoo namoon lu mel ni hmm. ana ban yëg-yëg ngeen àndal ci bi waaw mooy fi ma tàmbale woon rek muy ndigal li nga xam ne ni ñëw neen pour motal ko ndax ndi murit moom ba xasee ba jot ndigal rek dof na fépp xasul ba mot rek moom mënutul doon nit kon loolu dañ ci santaat baax ndax ñun bu ñu xas ba nekk ci toolu suñ bi ñun dañuy déconnecté carrément ndax lu bu ndigal li motul rek ñun moom mënuñ xam fan nekk kon mbas mi tamit ngi ñaan saa borom jël ko fi si daraje Serigne Saliou te yàggal suñu Cheikh Saliou lool mu ànd ak wér barke Serigne Saliou. la wala nu koy doxalee ba tax lan mooy indi turu keppaar gi ak nan ngeen nosoo ba mën a ñëw àndandoo bi nga euh, ko mooy yéen waa keppaar gi ak fan lañ si jëloo ci biir Touba. ak saa Baye Diodine ñi ngi rafetluwaat kàddu yu baax ak laaj googu bu am solo googu ndax euh, benn mbooloo la mi nga xam ne ñi ngi ci gox yu bari ñée ngi Dakar ñii ngi Touba ñii ngi ba Koungheul Saloum ñooy doon ñoo xam ne ni amaana seen gisante sax demagul noonu ndax waa Touba ñoo fi dajee nii ak man mi nga xam ne maa jóge ba saalum yeneen jóori ni nga xam ne ñi ngi Dakar ñoom ñëpp yittee leen tënk rek waaye ñoom ñoom ñu ngi leen jaaraat baax di leen jox seen wàccuwaay leen nag taxu ñaa jóg lu dul ànd liggéeyal Serigne Saliou Mbacké loolu rek mooy suñu objectif mooy suñu bii si naka suñ Cheikh lépp lu mën a woote rek muy ndigal dañ ci fexe suñ doolee dem ci ak suñ doolee poos loolu daal mooy suñu objectif liggéeyal Serigne Saliou Mbacke képp rek donc. liggéey bi mat xol yëpp bég sa dem gi tax na xol yëpp dee na ca yàlla laa ilaha illa laahu muhammadun arsalawal ilaahu salaale ilaahu bi salaami fi ali wa sabil kiraami ca yàlla jël na mbàkke balla ay borom gët ak mbuur dem na néeg solom saa ca yàlla jël na bàyyi soxna moomi naqaru tiis wi mas la am ci réew mi ku baax ka dem na nii ba génn àdduna wallaayi lii de metti ci àdduna way fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko man tey fu nu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf tiim na bàyyi soxna waalo Mbàkke way adduna tukki ku yebu jekkim mooy sansu falli moo fi roy yonen bi jant bu soowee kenn du ci dun bi moo leeraloon biddéew yi leeral weer ace jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek ànd nañ ak yéen ci li nga xamee ne moom la oto yi di génne fii nga xam si ne moo di Xelcom Diaga ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ci liggéey tool yi ba mu jeex ñu leen di sant bu baax di leen gërëm yéen ñi nga xam si ne yéen a ñu doon topp ci 24actu point com waaye di sant groupe bi nga xam si ne moo di keppaar di leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen jot